waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di siyaar di nuyu mbokk internet yëpp ah ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan ak ñi ñu xàmmee yëpp du nuyu waa Sénégal di nuy waa bitim réew di wax ne Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg man la Fodé Fodé dina ma neex Fodé capital ah di artiste comédien nag di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp macha allah jaajëf. waaw événement bi euh, suma 15 ans de carrière laay féete mooy thème bi maa ngi ko tuddee kóllëre. waaw thème bi thème événement bi laa tuddee coloré mais 15 ans de carrière la ñu war koo feete fële ci Sorano le 13 mai incha allahu rabbi à partir de 19h di wax ne mise en place mooy 19h nag ku yéex nag ñàkk waaw entre VIP 10 waaw. waaw parce que kóllëre dafa nekk loo hamne. Wah, waaw lu war di fésal la te nyuar wax ne dafa xaw wanya dafa xaw a raf. la dafa xaw a raaf léegi na man nag loolu nag laa bëgg a indiwaat pour wan nit ñi ne ne artistes yi am nañ kóllëre parce que ku ñëw ci événement bi gis ñi may sargal ak ñi may jox ay diplôme de reconnaissance nga xam ne lay dund waaw parce que waaw ci événement bi spectacle son et lumière spectacle bu inédit boo xam ne daal dina am son et lumière macha allah ku fa ñëw daal di nga gis nag lu doy parce que dañu ne waaw du capital du dina ma neex leneen la parce que dama bëgg nit ñi xam ne ñun ci planche lañu njëkkee avant dara di xew ñun fii lañu njëkkee ci planche waaw nag di remercier vraiment aussi waa Grand Théâtre parce que depuis décembre ba tey ñoo ma jox salle foofu laay répété waaw macha allah. di nuyu directeur bu baax a baax di ko jaarale ci madame Diallo nga xam ne moom jàpp na ci bu baax a baax li tax man ma mun a am fii salle bi pour di répété waaw di wax daal ne Sénégal ñëpp maa ngi leen di woo di woo suma parrain yi di woo suma marraine yi macha allah. waaw parce que loo loolu loolu si si spectacle li ñu créé nii muy création bi nii création bi ñu def nii euh, di nga ci gis foode di nga ci gis euh, dina ma neex di nga ci gis capital waaw ku ñëw foofu surprise yëpp ñoo nga fa incha allahu rabbi di nga gis ay di nga gis xam ne kii élément capital la ne kii élément dina ma neex la te ñëpp ñoo ngi ci biir pièce bi waaw affaire bi daal dama leen di ne daal ku fa ñëw ku yéex ñàkk waaw na ñëpp ñëw te xam ne daal macha allah pour nit ñi gën xamaat ne ah, On ah, on fait que du théâtre Ah, théâtre rek théâtre dans le vrai sens du mot inshaAllah. On ah, m'accompagnons, m'accompagnent, suis mon nañ muy suma papa ak suma yaay suma ah, famille Ah, ñi nga xam ne dañ maa bëgg te yàlla rek tax suma parents yi ñi ma tuddee ñëpp ñooñu dañ ñooy ñi nga xam ne dañ ma yàgg a di ci nuyu nag waa Win Global vraiment jàpp nañ ci bu baax a baax a ci communication bi ci ci ci ci tirage u poster yeeg tirage yeeg macha allah lépp lépp lépp rek Win Global jàpp nañ ci baax a baax ak suma benn frère suma benn doom ñu naan ko Akim Mbuub moom moom vraiment lépp loo xam ne flyers la lépp loo xam ne carton d'invitation la rek teg na ci loxoom waa infographe bi daal lépp moom côté moom la lépp loo gis ne infographe rek la Akim la macha allah wa mot de la fin moi maa ngi nuyu ñëpp di sant parce que événement yombul man maa ngi événement parce que c'est la première fois la première édition mais nag di wax au ministère yi waaw nañuy artistes bu baax a baax te xam ñun amuñu art bi amuñu métier kon bu ñu wala ñu wala ci à la ci dimbali ci parce que événement dafa metti wa di nuyu nag di siyaar ñëpp di nag nuyu suma Ah, ak Ibo Sarr vraiment jàpp nañ ci ak xale yi ma àndal ci événement bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci pièce bi macha allah maa ngi ziar ñëpp di nuyu nag Michel Michel ku sonn la ak Moustapha Diop vraiment Michel seen seen sa copain sonn na ci bu baax ak ñoom laay vraiment vraiment daal waa Win Global daal ah mention spéciale daal boo bëggee dégg dëgg waaw di nuyu nag ah sëñ Mouhamed Faris waaw sama sama sama waaju baax joo xam ne vraiment mu ngi dëkk fii Yoff kooku moom ah, moom mooy borom def gis kooku mooy borom def gis xam nga lu ma wax ne ma fu ticket nekk rek indil ma ko ma jënd lépp kon xam nga loolu ku la koy defal te yàgg xamante bi yàggul loolu rek ndam la waaw di nuyu nag minicar mu sëñ Saaliw di nuyu parrain bi Baba Amdi euh, Alassane Mbaye géwélu VIP macha allah maa ngi koy nuyu di ko siyaar ñoom ñoo ci parrain yi lañ bokk marraine yi aussi ñoom kazalika noonu nday Anta Dia ji assu sare mooy mun a mbooj marie si soxo Kumba Fall vraiment ma kenn ant euh, ant ant ak Ana Kanté vraiment bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn gërëm naa ñëpp waaw spectacle daal maa ngi wax ne sénégalais comme man yàgg naa leen a bégal nañ ñëw bégal si ma Sorano ma bégalaat leen ci kaw seen bi incha allah